Optima ñëpp ci gis seen bopp. soo amoon ku la jël téye la toppatoo doo moroomu xale si man nag kaa bëgg a dépassé ndax kii boo xoolee bëgg na ma rek te yàlla tax. aussi de beaux yeux. sama bët yi beaux yeux. itu aku xàmmee woo ma man yow la surprise ak. surprise nak ci man man cardiaque <laughs> di def ni damay érik seen badu khalisu sayer bi nga yor di ko pasar pasaree. kati la def lu xew. si nga kati baaxul. li bi yorum bal du gis. so ñu ci bërëb doo nuyoo. kenn lay waxal man. bintu lu tax mëno xamé walu yu ak bandi. dana volé mi yow ki ay da bul jaawale turi ba da moy copinam bi mu jamono.

ma bëggul liggéey nga dem ah. enfin kontaan. ouf il est parti. je suis débarrassée. kat mi nga xam mo yoron kër gi liggéeyatu Ta salaire bu duggul ba daan yor kër gi. dana métti. ñun ñoo ñoo xamé ñun ay katé yor kër gi yu kenn xamul Ya nga xam duñu kër nu ko yoré yow. yo goro yettoo ba pare tak jabar indil mer jabar. am ngeen gan de xamoon nga ni jaan ci suuf tànk ci suuf yag yag nañ dajé. njéemi sama jawr yoonu yàlla.